jërë ngeen jëf mbokk internetu Dakar Live TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ziar leen mbégte la comme saa su nekk rek ni ñu koy defee jàkkaarloog yéen ci jotaay ni mel euh, tey nag ñu ñëw ci diwaanu Sicap Foire daal di seeti Serigne Khadim Mbacke ko euh, ci liggéey bu am solo bi nga xam ne askan wi ñu ngi koy jokkalanteeg moom dañu koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu door waxtaan wi Serigne Khadim maa ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum micro bi. Mhm. maa ngi lay ziar di la nuyu. ñu ngi lay fay di jiital nag ci sunu nuyoo ki yàlla jiital ci ñun di ba liggéey bu rëy bii mu nekkal mu nekk di ko liggéeyal maam ja mu yeggalee ko ni mu ko bëggee. di nuyu mbooleem Sénégal mbooleem réew mi ak bitim réew. di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp. waaw mm. ñu ngi lay delloo nuyoo bi. macha allah muy nuyu bu am solo mbokk yi fi ñu dooree waxtaan bi bokk na ci actualité politique xam ngeen ni jamono ji moom réew mi yëngu na bu baax rawatina coowal Ousmane Sonko Adji Sarr bi nga xam ne ni ki le 23 bi ñu dëgmal war nañ koo àtte dinañ waxtaan itam euh, ci lu jëm ci wàllub listixaar waaye tamit wàllub noob ak fajub fajub rab waaye tamit ñi nga xamante ni këyit d leen a tëllool ñu am ci jafe waaye xam ngeen ni euh, bu baax nag euh, ki nga xam ne moom moo di Serigne Khadim Mbacke moom mi la yàlla suñu borom may na ko ci bu baax a baax waxtaan wi mooy actualité politique euh, coow li jamono ji bari na ay ndaw di ñàkk seen bakkan ay saccage yu ñu nemmeeku ci réew mi euh, yàlla suñu borom am lum la may euh, ci wàllub xam-xam noo jàngatee tey politique bi ni mu demee ci réew bu Sénégal rawatina diggante Adji Sarr Ousmane Sonko. waaw wàllum politique nag moom dafa nekk loo xam ne damay li ma ciy wax sax ñu baree bari dañ naan kii sëtu Cheikhul Khadim la la leen seen maam bàyyil nekk leen ca. mais man dama gëm ne li ñu sunu maam bàyyil mooy xool li nga xam ne moom la askanu Sénégal bëgg. Mhm. ñu fekk si leen fa te jàppale leen ci. Euh, moo tax mënul ñàkk dañu xool fi réew mi toll. Mhm. réew mi nag la tax ma sañ def analyse sañ taxaw comme ñëpp wax ci dama ciy citoyen comme ñëpp. bokk ci réew mi li nga xam ne day xew ci réew mi intéressé ñu. ñu war a taxaw wax ci sunu xalaat. Mhm. xalaat boobu it foo la ñuy jaaree ba mën a wax li nga xam ne mooy actualité li nekk ci réew mi. di loo xam ne wax dëgg yàlla lu ñu ñaawlu la. ndax sunu réew euh, suñuy maam dañoo xeex ba egsi fii suñuy baay ñëw xeex ba réew mi egsi fii boo xoolee Sénégal ba mi Sénégal ba léegi bañ ñu may indépendance ba jamono jii may xeex yow mën naa la wax ne réew mi dellu ginnaaw gi mu dellu ci jamono jii mës am lu ne nag daan nga ko fi dégg lu ne daan nga ko fi dégg waaye euh, injustice yi ma gis nii man boog de dégguma ko. xëy na nag am na fi muy affaire Ousmane sonk Adji Sarr bi muy loo xam ne lu mënoon a ñàkk la. wax dëgg yàlla benn waaye boo xam ne jóge na fee kenn xamu ko kenn xamul euh, ci ci moom loo lu baax looy seete mu jóge fee ñëw fekk asgor gu gu mel ne Ousmane ko mu tiim mu tuumaal ko tuuma bu rëy rëy rëy rëy rëy bu ñu wax euh, viol nga xam ne euh, wax dëgg yàlla de damay wax naan tuumal yi sax mënoon naa ñàkk ba mu demee ba mënul ñàkk ba mu eggee ñuy porte plainte dañ naan ko ndax dañ ko waroon laaj ndax xam nga kay pelante kan la mu ne la Ousmane ñu ne ko ah lii de bu ñu sañoon ñoom Macky Sall sax bu dee da koy recevoir ñu jël affaire yëpp ñu teg ko ci suuf. Mm. waaw ñu jël affaire yëpp ñu teg ko ci suuf mu def ko ndaxte kat lii gëwuma woon ne jaroon na ay bakkan di ca dee plus de vingt personnes dee nañ ci. Mm-hmm. avènement mois de mars mën nga compter seize personnes yu dee keroog ñaata personnes ñoo ci dee nee nañ ay trois personnes quatre personnes dee nañ ci loolu ndax mënu woon a ñàkk ñaata milliards moo ci moo ci yàqu. Mm-hmm. injustice bi nekk ci réew mi nag dafa bari lool réew mi ñu nekk. dafa doy waar lool wax dëgg yàlla réew moo xam ne ku génn wax ñu jàpp la tëj damay wax naan euh, Ousmane Sonko demam gii si gee sor day joxe firnde bu baree baree bari nit ñi bu ñu daan def euh, lu mel ne manifestation dañuy concentré wu trop ci Dakar xoolal Ousmane Sonko ba mu ñëwee Mbàkke bawal bawal yi ñëpp dañoo génn ba Ousmane Sonko ne lii laa bëgg fii laa yegg wallaahi waa bawal yëpp dañ ko jaa jàppale yàgg na ca si gee sor ndax mën nañ mas nañ ko faa fekk ba jaay ko injustice mais bu ñu ko fekkee Dakar lu ñu bëgg a def def ko. Mm-hmm. kon boo xoolal leen seen bopp bu baax a baax. ndax gisoo ni tey peut-être kàttan bi nga xamante ni euh, am na ko fii ci ci ci Ndakaaru ndax gisoo ni tey ñi nga xam ne ñoo ko war a taxaw maanaam fii ci Dakar fit bi nga xam ne moom la ñu war a am dafa des ba tax na Ousmane Sonko teg leen fi dem si ngee Ziguinchor. des na des na des na ndaw Sonko bu ñu woon Bawal li mu wax bu ñu woon Bala Bawal la xew Ziguinchor moo fay xew. Hmm? te loolu dafaa jaar lii Bawal la njëkkee. Hmm? li njëkkewut Ziguinchor Bawal la njëkkee. Ousmane Sonko da ne damay siyaare ji Baay Faal hmm. yaa ngi dégg seen xalifa bi ne leen dem leen demal fa nga egg ca barab ba mu ne dama fay dem ñu ne ko doo fa dem force la la mujj jàllee dem. Mhm. fan la mujjee fenn. d'accord mais dañu gis euh, li nga xamante ni moom la ñuy faral di nemmeeku ci ay mbiram maanaam moom bu wootee li ni mel wala sax bu ñu ko woowee ay xeex dafay am ndax gisoo ni tey loolu dafa bokk ci li nga xamante ni moom moo di gàllaajam. loo loolu noonu la ko waral mooy. Mhm. Euh, man bokk. Mhm. man de ñu ma woowoon wala ñu woo kaneen wala ñu woo kaneen ñi ma mas a gis ñu woo leen ñëpp même Macky Sall mii bañ ko woowee. ba ko euh, bañ ko convoqué néewuñ ko fii ngay jaar néewuñ ko sa bundu kër dañ koy bay dañ koy bay dañ koy taxaw kenn du fa dugg kenn du génn yow Ousmane Sonko ñim dëkkal rek bu demul woon si geesoon ñim dëkkal ba léegi loolu dafa mel ni àq la te àq boobu lay daw àq dafa sew émentionnel yow ñi nga dëkkal à chaque fois mhm. à chaque fois bu dee yow ñi nga dëkkal dañ lay dañ lay dañ ñi nga dëkkal mhm. cité kër góor gi à chaque fois bu dee dañ laa woo procès dafa am ñoom ñëpp kenn du nekk ci jàmm kenn du nekk ci salaam imaginer loolu loolu jaadu na. Mhm. loolu jaaduwul santul yàlla. d'accord ñàkk dem bi nga xamante ni euh, moom jamono ji nee na du wuy justice tànk li nga xamante ni bëgg na ko euh, defaluñ ko ko ndax jàpp nga ni tey loolu yoon la. waaw man de wax dëgg yàlla Sonko mooy moom laa def sama leader moom laa moom laa jàppale it. ndax ànd nga ak moom. waa du def lu ma àndut. ah bon waaw lu ma àndut. ci ci man boog dama koo dama koo jox euh, ki nga xam ne dama ne ko jiitul. Mhm. ma topp sa ginnaaw xelam doy na ma. d'accord. kon nag kooku wax dëgg yàlla man amul leen loo xam ne maa ngi ko cay conseil ci côté boobu bu dee xool na ba mu leen kon nañu ne euh, dem gi gënut na toog laa koy wax. mais xeex yi nga xam ne daf koy woote ci ci réew bi ndax jàpp nga ni tey loolu moo war a nekk stratégie bi mu nar a bi muy xeexee. Euh, soxna si. Mhm. mësuma gis benn leader boo xam ne fii nii li ñu insiste bi ñu teg Ousmane Sonko ñu ngi la koy teg. Ousmane Sonko gisuma fenn fu mu wootee ne euh, na ngeen génn taal nangam ak nangam daan ne résistance. Mhm. maanaam réew mi seenum réew la bu leen nang kenn ku leen jaay insistir man de man boog de ku ma naroon jaay insistir waa Sénégal yëpp moom ma leen woo ñu ñëw dinaa leen am loo xam ne du ci Ousmane Sonko du ci wàllu xeex te Ousmane Sonko buut kenn xeex dafa am loo xam ne lu yàllay def ci doomu aadama la. Mhm. premièrement bi xoolal wàllu démb gis ngeen bañ a dugg la Ousmane Sonko bëgg. Mhm. moom la xëddee tey jii xoolal. bi ñu bi ñu génnee bi ñu tey jii xoolal maa ngi nii soxla ba ñu dugub ñu naan benn 300 francs. te fi mu toll nii participation loolu participation la ci maire yi nga xam ne dañ daan xëy di bénéfice au 2000. Mhm. démb dama egg ci benn maire di ko jaay ma beñe dugub mun ma Sonko jeex na Macky Sall fi des may ko ne ko na bàyyee toog taatu bool ne ko taatu bool bi na ci bàyyi. te mhm. nag lii dinaa ko seedeel Sénégal yi. mooy lan wallaahi alazim Ousmane Sonko ku am la. Hmm. ku am ngor la ku am diini la ku am dignité la. mais est man boo mënu ma ko jaa jàppee te képp koo xam ne bu ma la waxee nga gëm ma danaa la bu ko jàppee ndax dafa am fu ma ko teg dama dégg ki démb fan yi nday daak maa ngi koy masaw bu baax a baax jar na ñëpp ñu soutenir ko nday daak ak lom Lamine Niass mhm. bu mbuur jar na képp koo xam ne tiktoker nga nga génn def benn vidéo ngir lan ngir Lamine Niass moomu na képp koo xam ne youtubeur la nga def benn vidéo ngir lan ngir nday naak moom mhm. injustice bi nga xam ne ak beew gi baw gi nga xam ne gaa yi ngi leen koy def lu ne ñu leen koy wax lu ñaaw nday naag dama dégg moo wax ne Ousmane Sonko dañoo mas a daje ma ànd ak euh, Bart bi mu ànd ak Bart bi mu Ousmane Sonko gisee moom moo ma xàmmee ko tey bu doon ñeneen la ñu bare bari mën nañ la xàmmee mais duñu wax dara loolu dama koy firne mm. man mii di wax ak yow mm. am naa bis invité ko fa yaa ngi dégg muy màggalu daaran siir Touba ni mu soree Ousmane Sonko tëdd lalu hôpital mooy effet yii am mu sonn ba yegg ca lool waaye daf ne ak lu mën a xew man de amoon naa yéene dem waaye comme que mënumaa dem naa yebal ñaari nit ñoo xam ne ay député lañ ci sama part lañ dem ñu toog ñu dem teewal ma fa man sëñ Xaadim Mbàkke mii ak yàlla ni mu defee ma xeebu mhm. kooku kon loolu ngor doo ko man ak koo xam ne du la fàtte mais bu doon keneen na ndax dana tal loolu mhm. bu doon keneen du ko tal yàlla sedd na loolu kon kooku jëf ju jooju jëf ju rëy jooju en tant ak man ni ma xeeboo ma nekku ma nag wax dëgg yàlla lenn lu dul taaliba Cheikhul Xadim nekkuma lenn loo xam ne lu may mbubboo la ci àdduna lu mooy taalibe Cheikhul Khadim waaye loolu day firndeel ne kii ku am ngor la ku am dignité la ku ku gore la te lépp loo xam ne lu ko waaye defal la ci àdduna du ko fàtte. alors ñu ñëw ci xale yi nga xamante ni gis nañu euh, ñuy kagulewu ci Casamance ne dañuy protéger Ousmane Sonko ndax jàpp nga ni tey ñooñu mën nañ ko protéger rawatina kagul yi nga xam ne dañ koy def te ñu bari ragal ko. jàpp ma ne mën nañ koo protéger damaa wóor ne mën nañ koo protéger ndax dañoo def ma gis. Hmm? dañoo def ma gis ah ndax Ousmane ko ñaata personne ñoo wër këram ñaata personne ñoo ñaata alkaat lañ yebal këram ñi ay illicoog lu ne dégg nga ko fi boo yi taxaw fañ taxaw baare dara mujjul fenn ndax mën nañ koo jàpp buñ ko mënoon a jàpp moom ak waa këram la ñuy boole dugal leen ci kaso bi mënuñ ci dara mhm. kon booy dañuy def résultat jàpp ma damaa wóor jamono ji le 23 bi ñu dëgmal mu nekk bis bu nga xam ne jamono ji ñëpp tiit nañu ginnaaw le 16 weesu na gis nga ñi nga xamante ni ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan le 23 bi ñu dëgmal euh, ci zahir ak baatin lan nga gis ndax jàpp nga ni arrangement Ousmane sonk la ci chiffre. waa le 23 bii ak lu mën a xew Ousmane Sonko ala kulli xaal li mu wax rek mooy am. muy hmm. que ne sama bokk ci élection yi muy ci saaxir muy ci baatin fu la ko waaye mën a tegal. fu mooy ne lii Ousmane ko wax moo man a am moo moo ci am waxula lenn loo xam ne ci bakkanam lu du lu mooy ci bakkanam la ko teg benn sama bokk ci élection yi ci senegal yi la des peuple senegal ci la des te wallaahi alhazim yi loolu moo bu ko sénégalais yi seetaanee euh, élection 2024 yi du bokk ak loo ko teg teg ci wàllu baatin loo xool xool ci wàllu baatin fu mooy euh, Sénégal yi génn ne ala kulli lii dina am dina am ndax kenn gënul mystique ñii fi nekk hmm. kon nag wàllu mystique duñ ko fa teg wàllu bëgg-bëgg ak gëm-gëm lañ koy teg waaw. d'accord waaw bu dee xool na ba ba ba mu leer ko naññ ne rek euh, le 26 bii wuy ji bu eggee insistir insistir lañ ko jëlee teg ak foowee ak it kilifa ñu bëgg koo tuutal ci ay moroom yi ay doomam. Mm. ak i rakkam koo xam ne yow koo xam ne da ngay xool fii réew mi toll Sénégal ak ñaata millions de personnes ñoo fi dëkk. 99 pour cent Ousmane Sonko la ñuy déglu kooku ndax mën nga koo tuutal ba mu tuuti déedéet. waaw kon nag kooku da koy jox cër bi mu yaayoo yàlloo. mu ko mu boot ko war ko ànd ak moom ñi xam ne ñoo ànd ak moom itam wax dëgg yàlla continuer cër boobu waaw loolu laa ci xam. gis nga ni dina am ndam ci coow li nga xam ne topp na ko ci digganteem ak Adji saa waaw bu ma nag wax dëgg yàlla bu ma gëmul woon ne du am ndam. Mhm. di ko jàppale. ndax man bëgguma ànd ak ci sama àdduna nit koo xam ne kuy jël def kuy jël defet la te ndam loolu ndam la mooy lépp ndam mooy dëgg moo tax alxuraan ne waxul jaal xaq wa sanqal baatil inna baatil kaan sanqal mhm. yàgg yàgg fen day suux dëgg jug te Ousmane Sonko ci dëgg la nekk képp koo xam ne yaa ngi koy teg insistance bëgg koo jaay leneen lu loo xam ne bokku ci. Mhm. yaa nekkul ci dëgg. d'accord te yàgg yàgg dëgg day jug fenn suux. Mhm. moo tax nag wala kulli xaalis da ci am ndam. te man dama gëm ne mille 2024 bu ma eggee di woote dinaa fa fekk fooy Ousmane Sonko te dinaa ko wooteel. Mhm. incha allahu rabbi. ndax gëm nga ni dana nekk président bu Sénégal parce que ñenn ñi jàpp nañ que ne Ousmane Sonko boo otuwul euh, jamono ji ñaari bëñ yu yang la yor. Euh, peut-être mu egg peut-être du egg. mandarga bi gën a rëy bi bi gën a bi xam ne képp kuñ ko wax nga ne Ousmane Sonko doon na président de la de Sénégal mooy bu ma eggee danaa fa fekk fooy Ousmane Sonko kartam te dinaa ko wooteel koo wax ci àdduna mu Ousmane Sonko doon na ndax ñëpp a xam ne bu élection yi doon tey Ousmane Sonko ñu tëj ko prison prison boobu benn euh, moom génnul kenn campagne Macky Sall wër Sénégal yëpp def tour laa la wax de. waxuma mhm. mu toog këram de wala mu campagne bii fii de bu génnee wër Sénégal ba eggal bu ñëwee bu toogee Ousmane Sonko gañe hmm? waaw bu Ousmane Sonko nee sama maraakis yii na ma laa fa teg. am naa yaakaar ne mën naa defar Sénégal gars yi Marrakech Ousmane Sonko la ñuy wooteel ngir barkeelu ci barke Ousmane Sonko par rapport ak Macky Sall mais ndax jàpp nga ni tey li nga wax yombul ndax président Macky gis nañu lépp lu nga xamante ni peut-être élection la gagné na ko euh, su bokkee tamit dana dana yomb ci mbir bi waaw loolu ab loolu moom lu wér la ndax ñi ñi xam ñi xam Macky Sall li ko topp ci wàllu suivre ñëpp xam nañ ne leen loo xam ne lu mu la sans insistance wala lu xam ne bëgg koo joxe lii nag gars yi bàyyiwuñ ko xel mais na ñëpp dem toogi xool Macky Sall élection yi mu xëccoo yëpp muy maire muy assemblée lépp jékki-jékkiwut jox xoolul bañ gañ ko mu joxe ko loolu nag ña nga xam ne wax dëgg yàlla war nañ cee liggéey ñëpp ñu ngi ciy liggéey. Mhm. waaw loolu laa ciy tënk. loolu dafa xaw a sew. macha allah am na solo bu baax a baax ñu dugg nag ci sa wàllub liggéey. bokk ci li nga xamante ni moom moo di rek wàllub listixaar ak yi mel euh, fi ñu koy dooree nag moom moo di listixaar mu doon lu nga xamante ni peut-être jafe ci ñenn ñi waaye yomb ci yow euh, lan nga ñu mën a wax tey ci ci wàllub listixaar waa wàllum listixaar moom damay wax naa li ma ci man wax dëgg yàlla bari na lool mën na fukk ak lu teg ëpp na ko sax laay wax. listixaar mais wàllum listixaar listixaar nag dafa bari ay façon yoo xam ne bokkut waaye nag yàlla dimbali nañu am nañ ci tawféex lool te sendee nañ ko Cheikhul Khadim. dëgg yàlla ñun nag dañoo nekk man dama man boog laa wax damaa nekk nit koo xam ne juddu ñun la seexul Khadim ay sa maam ñun la foo bokk nga ne kër sëñ Basiiru bu sëriñ Touba. foo bokkee muy kër sëñ Baara bu sëriñ Touba ñëpp xam leen ci yoonu murit wax dëgg yàlla damay wax ne ab cër weesuwul loolu ku ku sëriñ bi nam ma dimbali doo nga fay bokk. Mhm. leneen nag loo xam ne boo sababloo jàngi lii nii xam-xam la pour jàppale ci nit ñi. wallahi laazim Cheikhul Khadim dañ la ci jàppale ci kàttanu suñu borom ba ni nga ko ni nga ko war a amee di nga ko ci amee képp koo xam ne seetal nañ la duñ la seetal nga ne gisooñu loolu moo am nañ ci ndimbal suñu borom bu ñu fekkee nag ñu mën a xool léegi nii danañ la wax ne lii nga ñu seetloo mën nañ koo xool fii nga fii jërul ngay ko ñu seetal la bu dee dafa laaj euh, toog toog xool ko ci ndox danañ ko def bu dee dafa laaj ram danañ ko def bu dee dafa laaj fanaanoo danañ ko def waaye daal ala kulli haal liñ bañ mooy ñàkk a gis te bu soobee suñu borom duñ jëflante nit a gisoo ko d'accord lan mooy njariñam seet nag nekk na loo xam ne mënul ñàkk ndax kat gis nga nit sax mu euh, tabax kër kër ga ndeke moo war a màbb ci kawam hmm. bu ca defoon ay bu ko seetloon ñu ko boo ca defee boo koy tabax defal lii ci suuf wala lii dana yegg te dana barkeel wa te ala la nga ca bëgg da ko ca am bu loolu seet ak ko mën a wax bu doon ab oto la seet ak ko mën a wax bu doon yoon woo mi dem tukki nit a ngi ba ilaa mi din day mujj ñëwaat te bu ñëwee tekki du tekkee fa ne mukk hmm. loolu nag seet a ko mën a wax kon seet dèjà bëri nay njariñ mënul ñàkk ci doomu aadama bu ne muy xoll mënul ñàkk kon nag nañ ko fonk bu baax a baax a baax a baax lépp loo xam ne it mi ngi sa yaram nekk ay gàllankoor yoo xam ne def nañ ko ci yow seet a ko mën a génnee kon seet du lu mën a ñàkk mhm. waaw kon su ma déggee maanaam nit ki mën naa euh, jël yoonu voyager euh, maara day taal yi mu war a def accident bu fekkee dafa seet bu euh, bu fekkee dafa seet maanaam tey ndax seet bi daf ciy génn waaw da ciy génn seet du bàyyi dara mhm. man boog ni may seetee du bàyyi dara lépp loo xam ne wax naa la ko mhm. da nga ma ci kàttanu sunu borom nag laa koy teg ndax yàllaay maye. Mm-hmm. wax dëgg yàlla waaye ñooy nangu waaye sant nan yàlla bu baax a baax ci may gi mu ñëw may amul kenn koo xam ne mi ngi taxaw di seet ci kaw àdduna ma mañee ko ci loolu nag ndimbalu sunu borom la. Mm-hmm. mooy waaye sante naa ko bu baax a baax bàkkuwuma ndamawuma yàlla rek ka fi ne. waaye dama koy sant bu baax a baax wàllub nopp bokk ci li nga xam ne baatale nañ la ko ndax bari na ñu nga xam ne am nañu jafe bi ni mel nga jàppale leen ci rawatina ñi nga xamante ni dañoo nekk ci kër bujje tey nopp boobu ci ci ban anam nga ciy jàppale ki nga xamante ni dafa am jafe-jafe bi. waaw nopp nag li may wax mooy da nga koo war a xam njëkk nga koy def ndax nit a ngi nii ñëw sa kër di la di la noobloo. Mhm. yaa ngi bind lii de loo xam ne dañ bañ la koy jàngal dañ ne la lii noob la nga bind ko jox ko mun la gisuma résultant benn person ak morom ju bokk lu ñu leen war a noobee noob li nga war a njëkk xam mooy war nga xam ban na la ma naar yu turaabi hawaayu maa yu bantawi xa la ci yor nga xool ban nañ mu la sam su xamar mari xataar mustara sanal sanal ba xam ban nañ mu la bokk nga xool ban burju la bokk jawza ban burju la ca bokk aswad huud yooyu yëpp ba xam nga dem foofu nga koy jaaree pour nopp ko nit a ngi ñëw amul problème ak soxnaam mais mënuñoo juboo lan moo ko def dëddale kooku boo koy nopp doo am résultat dindil la nekk seen diggante am na nit koo xam ne nit ki nga xam ne bàyyi na yitteem yëpp dem sëyal la kooku bañu la même bu la déggalul kooku jurut nopp bañu la da nga ko war a tasxiir boo ko tasxiiree mu topp la tasxiir doo nga de seen diggante kooku du nopp boo jëlee disson di nopp fekk na bëgg na kooku waroo waroo ko waroo koo nopp da ko war a tasxiir ki nga xam ne da nga koo bëgg moom bëggut kooku noob moo yaayoo ci moom boo ñëwee utiliser sa tasxiir da sonn dafa bëri ay façon yoo xam ne bokkuñ mm-hmm. léegi nag dafa jar nga maîtriser ko xam ko boo ko xamee ba pare ba xam ba xam yoon bu ne nga jàng ko nit ki bu ñëwee ne la Euh, nangam ak nangam bii li nga war a njëkk def mooy seet ko ba xam kii nii kat tasxiir nga ko war a jaarale wala nopp wala daam dox seen diggante nga war koo dindi bu mu ci a doon daal ala kulli alim boo seetee sëñ Xaadim Mbàkke Tansil wallahi doo ci da nga ci am résultat ci kàttanu su borom. d'accord nga yor fi beneen bu nga xamante ni tamit bokk na ci li yëngal coow li muy bi nga xam ne moom mooy jàppale ñi nga xam ne dañoo amul bayre wala ñi nga xamante ni sax dañoo umu wala ñu bëgg ubbeeku euh, tey boo ñu doon fàttaliwaat ci yu am solo yooyu. waaw wàllum bayre Euh, dafa bëri ay façon yoo xam ne bokkuñ mhm. damay wax naan muusa ngi nii wax dëgg yàlla kenn bëgg koo lekk mais Sénégal yëpp am ci moom ñeewant nit ñëpp boo lépp lu yàlla bind am nga ci moom ñeewant mhm. fu waaye fu fu mu duggee fu mu jaaree ci biir nit ñi muus maa ngi ne nit ñi buñ ko dawut te ñoo ko gën a mën a rey du leen lor waaye kenn du ko rey ñépp a ko bëgg buñ amee desit lekk jox ko luñ am jox ko mhm. kañaa ngi nii am na ñenn nit ñu koy lekk waaye fu ñu ko njëkkee jàpp même ñu ko dul lekk lu ñu njëkki xalaat ci moom muy ray comme niñ koy defee ci bukki bayre dafa bokk bëri ay façon yoo xam ne bokkuñ nit a nga yéeg ci kaw seen kooku noonu lan la soxla soxlawut ngay bind ay alxuraan yi di ko jox bayre bi mu soxla iblis ak ko mën a jox mooy nit seytaan yi lay woo nit a nga nit a nga nekk fee dem di def ci lu baax nit a ngay xëcc ci politicien yii nii bayre yi nga xam ne moom la ñu war a utiliser ak sëriñ si bayre yi nga xam ne moom la ñu war utiliser ak kiy jaay bayre ba nga xam ne moom la war a utiliser ak fecckat beeg musicien beeg yëpp bokkuñ loolu lépp nag seeta la ko mën a génneel nga xam ko ba xam ne kii bayre bii la mën a utiliser nga defal ko waaye bayre yi nga xam ne moom lañ lay defal muy bayre Yuusuf ak lu mu ci mën a doon buñ ko liggéeyee ba pare dooñee ku dooñee sa morom hmm? damay wax naa nit bu ñu laa may na bayre xolal ci moom yow mi nga xam ne yaa ko njëkk teewlu boo ko soppee xamal ne kii lim lay wax mën na dee amoo ci moom cofeel nag amal ne kii lim lay xamu ko waaye yaakaar naa ne de sant naa yàlla de ba nit duma gis bañal ma boppam sante naa ko suñu borom bu baax a mm. baax lépp nag day delloo ci mbirum suñu borom ñu ñëw ci ubbiku ak umb bi nga xamante ni itam bokk na ci li nga xam ne bari na ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla saa su ne ñi ngi déposé mënuñu leen a jël ñu jàpp ne peut-être ñoom ci seen bopp ñoo amul wërsëg ci wàllu woowu tey waa gàllankoor dafa dafa bari lool nit a ngi jàpp ne ñàkk euh, wërsëg la fekk ku am wërsëg la nit a ngi jàpp ne dafa umu fekk ne umuwut euh, euh, gàllankoor ji li nga xam ne mën naa gàllankoor doomu aadama bu déposé ñu teeku wala fu mu dem ñu tourné waat ko dafa bari nit ki bu ñu ko dootee fii ala kulli xaalin bu demoon Touba gee bu xëyee ñëwaat Dakar hmm? fañ ko doot rek lay mën a taxaw bu demoon bu eggee même bu ñu koy révérer dana desiwaat bu demee bu dee day dem ba génn piyaas bi ita euh, pneu oto ba peer ñu ne nañ ko defaraat biir dakaar ñu egg ñu leen faaw ngeen fanaan si dëkk bi dana ko fanaan mu xëy foom hmm? rabit da koy def li nga xam ne mën naa def mën na koo def dafa bari ba yegg ca lool du nit ki ne da ngay déposé ay kayit wala lu mën a doon ñu reféré la mais xam naa lu jëm ci wàllu kayit daal moom bu soobee yàlla ku ma ko xoolal nee na lii la procédure bañ ciy liggéey bi ci euh, gën a gën a assuré di 41 jours boobu képp kuñ ca teg wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar ndax résultat 100 pour cent la bu dee yeneen yi nga xam dañ koy liggéey nag ah, wax dëgg yàlla mën nañ koo liggéey def la lépp jox la lépp lu ca war waaye buñ ko liggéeyee mu diire 41 jours dañ naa la boyeke di am ci kàttan suñu borom kon ñi déposé visa ñu leen di rejeté ak ñi nga xam ne nekk nañu bitim réew yàggawut kayit mënuñu koo am loolu kay soxna danga waroon dékk numéro euh, dékk sa micro ñi nga xam ne ñoo nga fa xam ne ñu la hmm. am nañ ci yaakaar boog ne wax dëgg yàlla ñu ci jëflante da am résultat ndax ñun dañuy ñaan ci yàlla sunu borom amul lenn loo xam ne lu ñu lu ñu naan lii bu neexee yàlla mu am bu naqaree yàlla du am. d'accord bu naqaree yàlla mu am ñun da man dama naan la bu neexee yàlla euh, mu am bu naqaree yàlla du am waaye nag sant na suñu borom ndax lem ñuy digal. ñu ngi koy def te yaakaaruñ ne tooñ nañ ko tooñ koo xam ne war nañ ko ñaan duñu may mais sëñ bi ndax ñuy sant bu baax ndax ñu bari jamono ji amatuñu confiance ci ñenn ñi nga xamante ne dañ leen di tuddee euh, mara euh, tey bari na ñu nga xamante ne dañ leen a nax ci wàllu këyit bëri na ñu nga xamante ne dañ ciy jëflante ak ñu bëri waaye gisuñ seen bopp euh, dem ba découragé waa mbir moo gis nag ci àdduna dafa am ñoo xam ne ñoom la ko yàlla cërale am na ñoo xam ne deret ji daw ci ñoom deretu gor la man boog li may wax ne seexul xaddiim may sama maam sëñ baara mooy sama maam wax dëgg yàlla man euh, damay wax naan sax euh, des fois lu baree bari bu ma koy def ñeewante moo tax ma def ko ñeewante ay jaam yàlla ndax man mii di wax ak yow sëriñ Touba jël na ab leetar loo xam ne ñëpp koo taxaw laaj ko ko mun la dëgg la sëriñ Touba jël na ab leetar jox ko sëriñ sama maam sëñ baara ne ko Euh, leetar bi yàlla moo ko jox jibril jibril jox ko yónte bi yónte bi teg ko ci sama loxo wax ko ne ko képp koo xam ne yaakaar na la wala képp koo xam ne jokk na ci yow bu dee àjjan la jëm te kenn du ko xisaab kon nag dama dama ne lii nii nekk ci man wax dëgg yàlla lu ma euh, sëriñ Tuubaa taw feexale la lu ma sëriñ taw feexale la du ma bàkku dara waaye wax dëgg yàlla damay naan am naa yaakaar sax ci barkeb Cheikhul Khadim lépp lu toog sama nopp yàlla mën na koo faj mhm. waaw waxuma laa may Euh, di ci bindoo. macha allah kàddu yi am na solo ñu tëjee ak euh, li nga xamante ni moom moo di wàllub rab euh, laata ñoo ñëw ci le 23 bi nga xamante ni moom lañ bëgg a tàggatoowee wàllub rab bokk ci li nga xamante ni sonal na jigéen ñi waaye tamit bëri na ñi nga xamante ni da leen di tënk ci ci wàllub góor tey jigéen bi nga xam ne dafa taxaw lu yàgg mënta am borom kër wala góor gi nga xam ne ku mu waxal wala ku mu yóbbul may ku njëkk nanguwaat ko wala sax du ko mujjee yóbbu tey ñooñu nga xam ne loolu wax dëgg yàlla sonal na leen muy wàllub rab ci lan nga leen di jàppale rab nag mhm. yi nga xam ne ñooy jàpp nit ñi ak nga xam ne duñ jàpp nit ñi mhm. dañoo bari ay façon am na ci yenn xeet rab yoo xam ne jinne fulus yooyu lañ leen wax muy saytaane yooyu nga xam ne ci sën yi la ñuy dund am na damay toog sax dégg nit ki naan des fois naan barxuut barxuut nangam ak nangam sax ci wàllu jinne mhm. ma dem ba euh, ba des fois ma am na ko ma ci ma sa dajal di débat ak moom ci wàllu barxuut ma ne ko yow ndaxte xam nga ne barxuut aw xuntu la maan ma euh, tam takk day jeesun Muhammad daal la ma ne ko barhut aw xur la xur woow la fa nekk ci jinne te nekk ay jullit ñu ëpp fuuf doomu aadama yi nga xam ne ñooy dund ci kaw suuf te nekk ay jullit hmm. ñu ngi ëpp mbindeef yi dund ci kaw suuf la fa nekk ci ay jullit rek laa la wax comme xur woow euh, mi nit benn mbindeef bu yàlla bind nga mën leen a yilifandoo amul te da ngay dégg sax ci télé yi ku naan la moo man maay barhut léegi nag ragal yàlla dafa jar pour ngeen am ko ci doomu aadama yi ragal yàlla ci seen communication mba wàllum rab nag rab nag dafa am yoo xam ne yi nga xam ne ñooy dox ci sën yi en koo gis fii mu jommi boo ne loo gis rab danaan la li ma gis ñeenti tànk la am ah. jinne yi nga xam ne ñoo jommal li ci ëpp mooy yi nekk ci sënti yi nga xam ne hmm. ko topp xool ndax dañ koo bëgg a faj la wala lan lañ ko bëgg a def la pare nga jaare ci yoon boobu doot koo mën a saafara hmm. waaye lu mu ci mën a doon incha allahu rabbi buñ ci jokkoo bu dee dalaatee am borom kër dañu la wax ne la ala kulli xaalin da yàlla dañ la defal tawfeex nga am borom kër bu dee dalaati am doom noonu bu dee mu la mën a tee def ci àdduna day yàq sa wàllu wërsëg incha allahu rabbi bu ñu la jàppalee danga ci gis résultat ndax it li may wax naan ci wàllu guy mind laajal Touba boo duggoon dégg sa micro ko laaj guy mind mun la wax dëgg yàlla yàlla cëral na leen ci côté boobu mm-hmm. daa am loo xam ne du bàkku mais sant yàlla la ak may am na solo bu baax a baax sëriñ Xaadim Mbàkke Taysiir ay ca ñu tëjee ak le 23 bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ginnaaw le 16 li nga xamante ni moom moo fi jot a xew gis nga ay ndaw yi ñàkk seen bakkan comme ni ma ko waxee ci tàmbali ba gis nañu ay entreprise yi nga xamante ni saccagé nañ leen ñu dëg ñu dëgmal nag ci le 23 mu nekk nag lu nga xamante ni peut-être ñi nga xam ne xam nañu chiffre euh, ñu mel ni yow am na lu nga xamante ni xaw nañ ko cee wax le ci chiffre bi ndax jàpp nga ne lu arrangé Ousmane Sonko la. Ousmane Sonko man jàpp ma ne dara lu ko Macky Sall di teg mu koy ñàkk arrangé am na man damaa gëm ne lépp da koy arrangé. chiffre 23 chiffre bu 23 ak 29 ci am man mënumaa gis ci Ousmane Sonko lu négatif. lépp loo xam ne gis naa ko ci lu négatif jurul sax ma koy woo téléphone président Ousmane nangam ak nangam man maa ko njëkk a fànqal sama bopp. Mhm. kon boog noonu laa ca mel. tey bu ma gisoo lu négatif ci Ousmane Sonko ak fii ñu toll nii. Mhm. dama taxaw ne nangam ak nangam négatif na man maa ko jéem a saafaraal sama bopp. am na loo xam ne du ko wax. waaw waaw parce que ñu bëri nee nañ say chiffres tout le nga koy côté. am na loo xam ne du ma ko hmm. am na loo xam ne du ko nekk di wax. d'accord waaw. boo adatee Ousmane Sonko Ousmane Sonko tur yam jàpp ak la ca xew lépp xam naa ko xamin gu wéru wér comme ni ma xamee sama tur. leer waaye nag lu ma ko ci jàppale wu du taxaw fii public di ko wax ndax man nga di wax di kortike lenn lu ndaw nit tollu fee di ñaanal keneen ki xam ne lii nga wax xam-xam bu wér a wér la lan lay njëkke def muy ko ne jëw tas ko ndax yow mii yow mii bu dee sawtur génnee naa ko ci lu baax sa chiffre génnee naa ko ci lu baax wax ne nangam ak nangam moo lay saafara mm-hmm. nit day taxaw fee biir chiffre yooyu da ciy génnewaat lu bon mm-hmm. xam ne lii moo lay lor mm-hmm. léew gis dafu la ak jalbu mais nag man ku may jàppale lu baax lu ma gis ci yow duma ko wax. kon su ma déggee maanaam secret dafa baax ci mbir mi. waaw chiffre chiffre jàmbur du ko génnee ci public. Hmm. non non boobu du ko génnee chiffre bi nga xam ne moo koy jariñ xam naa ko xamin bu wér a wér ko génnee am na nit ñoo xam ne xam nañ bu négatif ba fa la ñu toog génne ko mais du ma ko génnee. d'accord waaw dëkk bi ndax dana stable le 23 bi ñu dëgmal ndax jàmm dina am. waaw jàmm moom mi ngi aju ci loxoy Macky Sall koo xam ne nag dañ ne la jiiteel wax dëgg yàlla boo mënul jiite war nga ñëw mën a delloo sunum réew waaw ñu xool ko ñu neex ñu jiiteloo ko koo xam ne ja say ja jàmm daa tege ci say loxo waaye dafa mel ni nag aw ay moo lay gënal ku mënta gis nag wax dëgg yàlla ay morso yu xonk war ngaa mën a gis ay sawara mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu baax ñu ngi lay jaajëfal mbégte la woon feggoog yow jotaay bàyyi la nga tàggu rek ñi la doon seetaan ci Dakar Live TV waaw ñu ngi leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm euh, di ñaan nag wax dëgg yàlla yàlla defal ñu dëgg dëgg taalibe Cheikhul Khadim gi nga xam ne ñoom la ñu sàkk fu moom laay sàkk fépp fu ma toog mm-hmm. di ñaan yàlla def ñu jullit jullit piir di ñaan yàlla def jàmm mboolem fu Sénégal la nekk di def ko ñaan yàlla mu def ko ci monde bi yëpp waaw jërëjëf ñu fekkoon ko ci diwaanu Sicap Foire sëriñ Xaadim Mbàkke Taysiir kàddu yi am na solo bu baax a baax ñu ngi koy jëfal mbokk internet yi sant leen bu baax jaajëfal leen jox leen rendez bu yàggul dara ci beneen jotaay jërë ngeen jëf <laughs>